bu ñëpp jëriñoo doy na sëkk dafa tolloog nag di attirer rek attention nit ñi ndax ci suba dama jot benn information ñu wax ma ni ma moo xam dëgg la moo xam du dëgg ñu ni ma njabootu sëriñ Mbaye Sy Mansour dañu wax ni ci bëccëg bi dina ñëw course bi pour yàq gàmmu gi yéen a di tàccu fekk na bi gàmmu gi desee ñaari semaine muminun min ali firaun yaktumu imanahu ñëw na ci man ni ma lu ngeen taxaw doyul ndax seen bokk yi mobiliser nawuñu ci wàllu mystique pour lépp lu mën a yàq gàmmu gi danañ ko def ma bu mystique jariñul ci mille neuf cent cinquante sept du jariñ tey dafa tolloog nag pexe baaxul ndax ci mujjantalu dund Serigne Babacar Sy dañoo créer benn situation fexe ba impliqué ci ñoom président Lamine Gueye jël événement ba exploité ko léegi bi ñuy ñëw rek sëriñ Abdou Aziz mu ma koy wax ni ma bu leen dal xel mukk ndax am na ay lobby yu nekk ci biti ñu nga xam ni dara du seen xalaat lu dul utiliser ñi fi ne pour lu ñu mën a yàq ñu yàqu waaye xam nga sëriñ Babacar njabootam yi gënoon am solo bi sëriñ Babacar di wuy gi boroomam fekku leen ci biti ci prison la leen fekk waaw bu ngeen di tàccu da ngeen di déglu li ñuy wax ba noppi waaw am na loo xam ni ku ko tàccu boobu dégluwuloo njabootu sëriñ Babacar yi amoon solo yëpp dañ leen tëj kaso ca Gorée bi sëriñ Babacar di faatu fekku leen ci biti ñoom góor gi Kordu yu Gaye ñoom góor gi Mama Loog ñoom góor gi Maodo Gueye ñoom Moustapha Fall ñi amoon solo ci kër sëriñ Babacar yépp ñu tëj leen gore ba bi sëriñ Babacar faatoo fekku leen te Lamine Gueye ko lijjanti politiquement mu mel ni genre yooyu nag jamono bu nekk am na ñuy tànte gis ngeen démb sunu cortège waroon yegg si fii dix demi wala onze ñu ngi mujj a yegg fii quatorze heures ndax ay provocation te ci état bi la jóge dañoo mënul tere gàmmu gi rekk ndax xam nañ ni buñ ko tere woon réew mi tàkk moo tax nag il faut faire attention ñoom ñi jël xalaatu ñëw fii bu ma sañoon ba lu ñoo ñëw ñu gas seen bàmmeel ba noppi yónnee naa nag ci commissaire de police bi avertir ko ñu jël seen responsabilité bañ nañ ko ba ñëw ba fii ci course bi ndax bañ déranger kenn waaw mu mel ni nag léeg-léeg nit di wax di xumbal am na koo xam ne kenn yabu ko waaw kenn yabu ko bu ko defee kon nag ñu bàyyi xel sunu bopp wolof moo wax ni ku kenn bëggul dangay bëgg sa bopp waaw waxin la rekk mais ñëpp ñi baax ñëpp ñu bëgg ku ñu bëggul rek dafa fekk ngay leneen waaw mooy li ngeen wax léegi waaw bu ko defee kon nag bu ñoo xamoon li ñu def ci préparation li ñu jël ci ay disposition li ñu am ci ay arsenal ku bëgg a xaru rekk jëmal ci sunu kaw waaw te loolu capitaine mi moo ko def waaw wa tabaarakallaahu lu ko jarul rekk jaru ko mbir bu ñëwee te yàlla atte da ngay nangu dogalu yàlla mais boo ko bëggee interpréter autrement dangay indil sa bopp fitna te fekk jaru ko waaw yi passé passé na jarul di ko delloosi si ku fekk merum juróom benn fukki at nga ni danga koy faj tey da sonn sonal nit ñi waaw te sëriñ Abdou bii wax na leen ko biig jàmm rek lañu bëgg mais nous n'avons pas peur de la guerre waaw muy dëgg waaw bu ko defee kon nag xawma lu yombul ci jamono waaye ay yomb na waaw jàmm nag moo jafe waaye itam li wolof yi wax ni kenn du maslaa ba ñu maasala la waaw kenn du masla it ba dëgg sa masala waaw ko defee bëgg nañu lu baax bëgg nañu jàmm bëgg nañu ñëpp dund dans les meilleures conditions waaye itam nag am na luñ dul accepté te ñi miinoon démb ndegam ca théâtre ya lañu daan may daanuñ ñu may jàmm ñuy def théâtre ba ca digg ba xeer yi di ñëw di ñu fekk ci biir scène bi waaw ñu faf dagg théâtre ba di xeex ba suba waaw ay yoon am na Joal Fadiouth am na Pout am na kayaar am na xombal waaw lu ci ne di ñu sànni ay xeer ba ñu mujj arrêté théâtre bi di xeex ba suba pour wax la ni la am na ñoo xam ni seen mission moo demee noonu waaye jamais au grand jamais mësuñu nekk provocateur waaw du bëgg di def rekk lu jàngal nit ñi lu yee nit ñi ak lu ànd ci sago waaw bu ko defee kon nag ñu jéem a def yëfu nit rekk te ñi fi ñëw ci jàmm ñu ñaan yàlla ñu dellu ci seen kër ci jàmm yàlla musal ñépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke mag ñi ndax sëriñ Babacar Sy keroog bi événement yi amee te mu woo sëriñ Cheikh ba mu ñëw mu wax ko ko ci ñetti baatu arab yu gàtt ni ko amrum mubayyatum bil layl waaw ni ko lii xew dañ koo fanaanee tëral waaw ba xëy suba di ko soog a amal waaw ma defe ni nag ñun biig tëraluñu dara dañ doon waxtaane sunu yonent rek ak enseignement yi ci aju waaw am na yu xew yi ku ko indiwaat it da sonal sa bopp rek waaw réew mi am na yu mu dépassé ba noppi waaw léeg-léeg nit dina jël décision nga yërëm ko ndax bu démb doon tey du ko def waaw ndax def dara ba noppi weeru ca àdduna yépp xame la ca teewul li war a am am tax yenn yi itam amee jikko allemand jaru ko waaw parce que yi itam ba it leer deme ba léegi yëm nañoo sàkki pexe ci leneen waaw nga xam ni loolu dootul régler dara waaw bu ko defee kon nag ñuy sant ñëpp di bàllu àq ñépp di jaajëfal ñépp day sànn ah mbokk mi nag moo ma deey ni ma nga sant bu baax kenn buggul bu sëriñ Moustapha waaw ah. ah. waaw waaye fekk na Matar Ndiaye wax na ma ay xeeti taxawaayam yépp li mu ciy def yépp ci Mourchid TV ak ci niveau daayira bi wa yàlla ngir ngi dogal li ma koy dégg yépp benn yoon la ñu mës a gisi te teewul wa dëgg yàlla li muy def yépp mu di ko def ku ko wax mu ne la pour Serigne Moustapha ma defe ni nag tuutiwul yàlla na ko ci yàlla jàppale te yàlla